asalaamaaleykum waa ñi ngi eh, ñun ñi ngi ci waajtaayu màggal gi bu baax a baax euh, def nañ CLD def nañ CRD euh, président comité d'organisation bi ànd ak moom ak mboolem comité bi ñu ànd di waajal li nga xamante ne bii mooy màggal gi bépp matuwaay boo xamante ne bii war nañ ko ci jël tam ñu ngi koy euh, ñu ngi koy jël ngir bu ci àggee incha allah comme nañ ko amee woon daaw ci barke ak ñaanu sëriñ bi ñu màggal ci jàmm te benn jafe-jafe bu soob yàlla du ci du ci juddoo loolu moo tax fi ñu li nga xam ne moom moo ñu yitteel mooy nekk di waajal màggal gi ci loolu nag itam ñu ngi ñaan ñëpp rek ñu bañ di kenn bañ leen jëmee ci leneen rawatina ay nit ñoo xam ne euh, xañ na importance bi nga xam ne euh, taxaway diine am na ko ci xeex mbas mi xëy na ñoom gisuñ boobu gisuñ boobu importance xañ nañ tam engagement communautaire bi nga xamante ne bii aussi màggal gi mën na koo jur ba mboole ñëpp ànd maase xeexandoo mbas mi xëy na ñoom gisuñu loolu te loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo la te daal fiñ ci jaaroon wane na ko moo tax ñu ngi ñaan ñëpp rek ñu ànd waajal màggal gi defe ko ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee te doyloo ñaan ñi nga xam ne mi ngi koy ñaan te xam ne jàmm moo ci njëkk jàmm moo ci